ginnaaw fatuk Iba Thiam mu samedi gi nu génn foofe Almadi yoon teg na loxo boole ci déglu ñu bëri ci fils a papa ya fa nekk ndawoon ak moom bis ba mbir mi di xew ngir indi ay leeral ci mbir moomee ci anam yi mu yim fàttoo waaye nag ginnaaw loolu mu mel ni enquêteurs yi médecin yi wala sax procureur yi dañ leen di teg pression ngir ñu nëpp nëppal mbir mi maanaam dafa mel ni république u milliardaires yi ñoom ñëpp dañu jóg taxaw ngir xeex ba ñu seen doom yi nga xamante waaye jëru xale yi li ñu bëgg mooy li ñu jàppee ab homicide wala ab non assistance à une personne en danger ñu daal di koy teg fële te jàppee mbir mi nii ab mort naturelle la waaye nag mu mel ni mbir moomee du yomb ndax bu ñu sukkandikoo ci résultat enquête yi nga xamante ni brigade de recherche bu gendarmerie bu Dakar Plateau ak section de recherche bu Colobane wala sax gendarmerie bu Ngor amal nañ ko deewuk Iba Thiam gi dafay retracer rek ab film boo xamante ni ñu ko amalee ci guddi soirée privée boo xamante ni organisé woon nañ ko foofee ca almadi te ay fisa papa maanaam ay doom yoo xamante ni seen bay dafa am alal lool nekk ci réewum Sénégal ñoo ko te ka ko jiite sax te gën cee ràññeeku di Dame Amar di doom ci milliardaire bi di Ahmed Amar moom akub gelam di ab franco tunisienne buy wuyoo ci turu Alia jajaataal mu ràññeeku lool ci wàllum mbumbaay fii ci Ndakaaru moom àndul ci organisation bi les soirée ndax kat dafa respecté woon li nga xamante ni moo mujjantal gi ki di Dame Amar daf ko assuré rek dalal xelam xamal ni ko am nañ autorisation ngir amal bi lay leneen lu nga xamante bi fësal na ko mu di ab policier ba nga xamante ni na seen biir kookee sax ñu ngi ko fayoon lu toll ci vingt mille francs ngir mu escorter leen ba ca appartement Rougui mi nga xamante ni moo leen luye bi lay bërëb moom Rougui Diao nag di doom ci milliardaire bi di Papa Diaw Ito ay waxtu rek bi soirée bi tàmbale ci la kii di Iba Thiam commencé dal di piqué ab te doon ca génne deret ju bëri ca noonee nag ci la xaritam yi daal di tiit daal di daw bàyyi ko fa ba mu des kenn kuy wuyoo ci turu Luti Ba ak ku ñuy wax Jaja Tall ñoom ñi lee sax ñoom ñoo ko doon secourir laata muy génn àdduna bu ñu sukkandikoo ba tey ci rapport bi nga xamante ni enquêteurs yi génne nañ ko Lutiba ak Jaja Tall ñoom des nañ fa sax ba sapeur ñëw ak gendarmerie yi te noonee sax lañ leen tegee loxo ak keneen ku ñuy woowee Fatima ñu gën ko xam ci Poupette ñeneen ñi nga xamante ni dañoo dawoon mu di Dame Amar Aliya ak Jibril Njoogu Basel ñu gën ko xam ci neex ñoom ñëpp mujjee nañ leen daal di teg loxo waaye nag mu mel ni di ñoom rek la teg loxo ndax bu ñu sukkandikoo ci way takk der yi lu toll ci juróom-ñetti nit ñoom ñëpp yoon da leen a mujjee teg loxo ñoom juróom-ñett ñëpp ñu jàpp nag dinañ leen xamale ak ñoom kenn par kenn ka ci njëkk nag bokk na ci Dame Amar di doom ci milliardaire bi di Ahmed Amar teg ci di goro Youssou Ndour ndax kat doomu Youssou Ndour bu jigéen bi wu wuyoo ci turu Soxna Ndour moom la doon sëyal bu ñu sukkandikoo ci suñuy xibaar sax ba tey moom jabari dam Amar ji di Soxna Mbuub dafa tollu diggante jamono yi ginnaaw Dame Amar keneen ki yoon teg loxo moo di Alya di franco-tunisienne bi di ab nekkaleb dam Amar moom Alya nag jot na wax enquêteurs yi moom sax moo fa wax waxu drogue bu nga xamante ni indi nañ ko foofee ca soirée ba ginnaaw Alya keneen kun teg loxo di Fatima Rigal ñu gën ko xam ci turu Poupette nekk gérante boîte de nuit bi di Baramundi moom Fatima nag lim xamle moo di bi mbir mi di xew xamul doon fu mu nekk ndax lim jëloon ci drogue dafa bëri ginnaaw moom keneen kun teg loxo di Pape Jaja Tall di ab nekk foofee ca biir Ndakaaru moom nag métier moo di gérer relation publique chargé au clientèle waaye tamit keneen kun teg loxo di Louty Ba di doom ci président fédération sénégalaise de tir et chasse Mamadou Ba moom Louty Ba nag jot na marié ak rakku jabaru Youssou Ndour bi di wuyoo ci turu Aïda Coulibaly waaye nag ñu ngi ñuy xamal ni moom ak jabaram ji ñu ngi woon ci yoonu divorcé maanaam tàggoo ginnaaw Louty Ba keneen kun teg loxo di Jibril Njogu Besel jugan ko xam ci turu moom Jibril serveur la ci boîte bi di Baara Mundi jamono ji nag dafa nekk ci chômage technique ginnaaw moom keneen ku yoon jàpp di Amadou Niane di doom ci homme d'affaires bi di wuyo ci turu Julde ñaan moom mi nga xamante ni moom moom Sonam assurance moom Amadou Niane nag li tax yoon teg ko loxo moo di recel de malfaiteur maanaam dafa doon làkk ay defkatu ñaawteef ndax kat moom moo dalaloon Dame Amar ginnaaw bi mbir mi amee keneen ki yoon nar teg loxo nag te jamono ji ñu koy wër moo di policier bi nga xamante ni moo nekkoon seen Nigéria la kooku ab jaaykatu drogue la Kanta Rougi Diaw nag di doom ci milliardaire bii di Baba Diaw borom itok teg ci nekk conseil yu de la république Macky Sall à titre témoin moom nag li tax ñu teg ko loxo moom moo di mooy ki moom appartement bi nga xamante ni fa mbir mi xewee ma moom moo leen luwee jërë jëf fi la ñuy yam